di di ko jox wàccuwaayam euh, am na cër bu bari boo xamee ni dañ ko koy delloo ndax jox nañu ko aussi mais y un mais xam nga luy mais bi li ñu wax ne ni Sonko moo ko def en tant que premier ministre gisuguma fu ñu ko waxee gisuma benn preuve ci lu mel noonu te il a même dit lui-même le premier ministre il y a pas longtemps ci vidéo boobu mu doon def presque si on lit entre les lignes la mu wax mooy ni bu ñuy rendre compte askan wi la ñuy rendre compte ci lu mu mën a doon et dans cette vidéo man je a fekk que écouter la mu wax ma xool anam ba mu ko waxee ak la mu ci wax on on sent nettement c'est pas pour le dédouaner mais chaque fois quand il tient buy wax danaan son excellence le président de la république lii la bëgg son excellence le président Diomaye nii la ko bëggee son excellence mais kiy wax loolu est-ce que mën naa jàll ci suuf def leneen jàpp ma ko ba ba fii jàpp ma ko le président Doudou Wade c'est un ancien xam na lu bari mais bu fekkee ni li mu wax wala li ñu doon wax am na mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui un député à l'Assemblée nationale d'interpeller le gouvernement ou le chef du gouvernement ci benn laaj ne ko monsieur le premier ministre monsieur le ministre des forces armées lii ak lii ak lii la ñu wax di ko ruumandaat dëgg la wala du dëgg parce que le député à l'Assemblée nationale règlement intérieur ak constitution ñoo ko may mu mën a poser question gouvernement ci lu ëlëm xelam gi Marius Sagna le fait très régulièrement euh, Mame Lamine Diallo la faisait mais très régulière euh, régulièrement sur des questions yoo xamee ni dafa soxal askan wi wala askan wi di ci am xel ñaar ci ñenn ñi ñu ci am xel ñaar mais na député assemblée nationale posé question bi ndax wax boobu ñu jeexal ko benn yoon mais man jàpp naa ni wax boobu amul ci li ma jàpp man parce que gisuguma benn kayit gisuma décret gisuma contre signature décret gisuma arrêté gisuma correspondance te ñi ci war a wax wax nañ ci on a entendu un colonel bu ci wax muy ci armée euh, Antoine Wardini dégg nañu colonel bu nekk gendarmerie bu ci wax ne ni loolu mënta nekk amul dégg nañu autorité militaire yoo xamee ni wax nañ ci lu ni mel ñu ne loolu amul fan yi génne nañu sax benn euh, communiqué boo xam ne ça date de de du mille mars 2023 ou 30 mars 2023 communiqué bu jóge woon ci armée bi DIRPA di xam ne ni ñu ngi nuyu ruuma daat naan nangam am na ci politique génne leen ñu ci mbirum waxum politique ndax doxuñu ci la valable woon ci armée yaa un an moo valable ci armée ba tey jii ça veut dire que nous sommes la grande muette nous sommes une armée républicaine lu jëm ci wàllu ay waxum politique wala politique politicienne ñun bokkuñu ci te armée je le dis je le répète militaires militaire commandement la commandement bi xam nga may bi njëkk c'est le chef suprême des armées la mu wax moom la ñuy def duñ ci xool leneen te du ko wax directement gobi bi doo gis président de la république bind lettre wala joxe commandement boo xamee ni mu ngi jëm ci soldat bi yàlla na doon capitaine du ko wax colonel bi dafa am ay généraux président de la république lan moo tax mu am benn euh, benn euh, nu ñu koy weeti euh, chef d'état major particulier du président de la république lu tax mu am benn militaire gradé doon général dend ak moom ñu nokkee ko ñu duppee ko chef d'état major particulier du président de la république pour lépp luy question militaire question de sécurité moom la ci waxtaanan bu kooku waree convoqué yeneen généraux yi ci démembrement armée yi mu convoqué leen ñu xool nu ñu ciy waxtaanee pour que président décision bu muy jël mu xam ci lan la koy basé wu parce qu'il n'est pas militaire moo tax mu jël koo xamee ni militaire la muy dend ak moom régulièrement ci lépp lu muy mën a def donc vraiment ce débat euh, président Doudou Wade je pense que am na ay rakkam yu nekk assemblée bu Euh, coow li ëlëm na xelam mais ñi nekk assemblée nañu ko leeral comment en posant la question au au premier ministre foofu également Birahim la bu ñu jàngatee propos yi nga xam moom la Doudou Wade tenir quand il nous dit peut-être lu jëm si wàllum prérogative yu le premier ministre bu fekkee loo xam dañ ko voté par exemple jaarale ko si assemblée promulguée par le président euh, Macky aujourd'hui tey ñu bëgg a attaqué loolu est-ce que du loolu moo mën a justifier quand même ces propos yi nga xam moom la tenir. day artu ci li ma jàpp il ne fait que rappeler que ba fi le premier ministre dafa am ay pouvoir yoo xamee ni constitution moo ko jagleel ci kaw président jox ko ko mu ne la même bu dee dañuy renforcer les pouvoirs du premier ministre daa am yoon bu muy jaar ci assemblée nationale mais dañ la ne ci biir constitution le chef du gouvernement est délégataire de certains pouvoirs qui lui sont conférés par le président de la république qui peut si moom liggéeyam moom président de la république jël tout ou partie de ses prérogatives jox ko benn ministre pas forcément premier ministre mën na jël tout ou partie de ses prérogatives jox ko wala dénk ko ci benn moment benn ministre bu mu mën a doon mën na ñëw ne ministre de la défense wala ministre de l'intérieur wala ministre leneen jox ko benn prérogative loo xamee ni moom la soxal pourtant en tant que président la république ñu ne la dafa am nag yenn domaines yoo xamee ni du ko jë du ko délégué du ko able du ko du ko du ko dénkaane moom moo ko moom ñu ne la lu jëm ci wàlluk diplomatie lu jëm ci wàlluk défense Euh, yu ni mel mooy li ñu wooyee ay domaine de souveraineté yoo xamee ni président de la république moo ko moom mais ci même domaine de souveraineté yooyu mais mën na yebal nit lan moo tax ñuy yebal ay ambassadeur ci ay ci ay euh, euh, nuñ koy weeti ci ay réew lan moo tax ñuy yebal ay consul ay consul ci yenn ay réew pourtant diplomatie la mais da ci woo ministre des affaires étrangères ne ko defoon ma nangam ak nangam dama bëgg ma ambassade bi nekk fële dama bëgg sama coopération ñun suñu réew ak réew sàngam mu gën a ñoŋ bëgg naa ñu soppi nañu am na réew yoo xam ne amuñu fon ambassadeur bëgg naa ñu yóbbu fa ambassadeur parce que damaa bëgg jëflante ak yooyu la réew pour ñoo ñu mën a nekk sama diggante ak réew moomu wala président réew moomu lan moo tax ñuy indi lettre de créance ambassadeur bu ñëw kan nga koy jox doo ko jox premier ministre président la république nga koy yóbbu ne ko sama réew moo ma yebal pour ma ñëw représenter ko ci sa kanam lettre de créance ngay joxe le premier ministre on l'a vu recevoir des des des ambassadeurs je pense bu France ak xaw ma ban mais c'était pas pour ay lettre de créance parce que ñooñu nekkoon nañ fi ba pare ñoom la ñu war a jëflante ak